boo xam ne yàlla mën ko bàyyee wóor akaat yi inna li jannat baaban yuqaalu lahu dajjal yuqaalu yawma alqiyamati an yasdu an yuum fa ida daqala axiruhum uxriqa dalika albaab bunt la bopp li àjjana yi neex neex moom dañ ko fa bàyyee woorkat yi fa la ñuy jaar dañ leen di wutal ay xàmmikaay yoo xam ne ku bokkut ca ñoom du mën a xam màndarga yi ñuy wootee yàlla na ci yàlla boole suñ koor yoon waaye yenent bi sallallahu alayhi wasallam dal wax dal na wax ne ki woor am na yaari mbégte yu koy nekk mel ni mbégte ni fii ci kaw suuf la bëccëg bu tàng jër ngelaw li tàng jër ndox amut waaye bu ñu demee ba naan juróomi minit walla ñaar moo des ci ndogu mu xool yi ngi ndogu yëpp teew bañ ne dog leen ku ne xam ne ni mbégte mooma kenn ku ci nekk lam ci yëg moom rek moo ko xam waaye nee na yowmal qiyaam lay raw ndax bu ëllëgee bañ naan ñi wooroon nañ ñëwee nii ak xéewal dafay balle di génn su boobaa yàlla na ci yàlla boole waaye dara jarul bañ caa bokk kon suñ koor googu yàlla na yàlla yàlla nañu yàlla boole ci ñaari mbégte yooyu moom lay wax ne li saa in farxataani yafraxuhuma ida aftara fii ci àdduna farixa bi fitre wa ida laqiya rabbahu farixa bi waaye suñ bu mag bi it ci ay mbindam am na xasida goo xam ne ñu ngi ko tënkee fii chahri ramadan ama alsasin ama alsasin nag ci at yi ñu gën a ràññi koor mille neuf cent treize la woon daje woon ak weeru août nit ñi dañu ko siyaare si fa njëriñ ñenn ñi woñ sa lool woñ jeex takk ndax am na si ñoo xam ne ndogu da leen doon jaaxal xadd di leen jaaxal ba boo leen gisee xam ne ci coono yu metti lañ jóge sëriñ bi nag di leen bëggal ci coono yooyu ñu dajoon di leen xamal ne du neen du neen daal di bind xasida boobu fukki bayit ak juróom yaa la mi ngi ko tënke fii chahri ramadan ama alsasin mooy weeru août 1913 dañ ciy indi rek yetti bayit yoo xam ne war naa dalal xelam ku doon woor ma ngi ko tàmbalee faaza alladina xaafadu ala siyaam shahrin bihi ugliqa baabun lil iyaam ñi nga xam ne ñoo woor weer yi koor yu ba mu jeex ak coono buñ ci mën a daj yàlla defal na leen lañ doon lañ doon lañ doon wut lañ doon bëgg defal na leen ko lañ doon wut te xamuñu fi ñu koy jël yàlla may na la yàlla nañu ca boole dal ne ñi sonnoon lool ci biir koor gi te amuñu luñ doon doge yaraw na afdala futurin fi lxubur bis bu seen eh, ak ru tàggoog seen jëmm ba ñu fab leen ba jébbal leen seen borom danañ fa gis ndogu lu dàq fuuf li waroom doole yi di ndogoo fii ci kaw suuf waaye yowmal qiyaama lay raw ndax dinañ taseeg payu koo xam ne du jeexal dara yaraw na afdala futurin fi lxubur wa fil qiyaamati min al muxnil kabir dal li cay teg nag loo xam ne moom dégg ko jar na umaat wala weeru ko donaat suba nee na suñu borom mi bind bindeef yépp mi ngi jël mbindeefam yépp di leen seereel ne ngërëmam day sax ba faw ci ñi waroon weree ba jeex شهد خالق الورى للصائمين في رمضان برضاه القائمين kon bokk lañ ca def mu néew mu bari yàlla na ko suñu borom nangu te bu ko dul woon nangu yonent bi du ci jàngale jàngale moom mu ci jàngale sëriñ bi du ko leeral njabootam gi nii mu ko leeral kon ñu xam ne gan gu fi jaaroon di dem la gan nag kenn mënu koo tee Euh, lum néew néew lenn muy nettali aw yoonam ñam fa fekk ak lañ fa nekkee woon ak moom yàlla nu yàlla dimbale ba bu mu ñuy nettali mu doon lu su a wax fu nekk mu mel ne it <coughs> nangu euh, koor yàlla rek moo xam moo nattukaay waaye ab jaam mën na jaa xam dara jaamu yàlla yi nekke woon si biir koor gi ak pas-pas bañ ca amoon ak yu baax yañ ca doon def bu fekkee koor gi daa jeex jàll nii mu jàll ñu gën a sawar ca jaamu yàlla yooyu loolu ku mu dal mën naa rafet njort ci ne kooram yàlla nangu na waaye nag su fekkee dafa delluwaat ca maninam laata ñuy woo war naa seetaat boppam waaye mandarga yi wane ne koor gi nangu na daal mooy jaamu yàlla yéen toggoo woon mu bañ koo bàyyi bu ñu waree itam yàlla nañu ci yàlla dimbali yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam wax na ne bu koor gi jàllee it ku ca teg ay fan am nañu ne juróom-benn am nañu juróom-ñaar yoo xam ne nu mu ko defee baax na dana mel ne ku woor di des ci àdduna ci ay bés yépp moom it sëriñ bi neen dañu bàyyi wala xel lool kon loolu moo doon tomb bu njëkk bi tomb bu ñaareel bi nga xam ne ci laay jeexale nag sëriñ bi mi ngi dénk ci ndigalul kilifa yépp ñu waajal liggéey ñi nga xam ne seen liggéey daa gën a jëm ci suuf si ñu waajal ko te yaakaar ci yàlla te fas ca yii te fas yàlla mu defal mu ndoxum jàmm mu muy dundal te la muy dundal di ko saxal yàlla dimbale ñu muur loolu te fekkewaat koor gi ay ati ati at ñi nga xam ne it yàlla dafa dogal seen seeni fan yamoon ci biir weeru koor wi yàlla na yàlla yërëm ñëpp te jéggal ñépp te teg ci e, loxooy njaboot xolub muñ te bàyyi leen fi bañ mën a àggale seen naar yi ñu leen fi dëddu sëriñ bi nag mi ngi dellu di ñaanal Eh, sëriñ Touba sëriñ Cheikh Mahamadou Mountakha suñu boroom yàggal ko fi te wéral ko te yàggal fi it sëriñ Abou Baraka ak mbooleem njaboot gépp ak mbooleem jullit yépp te def jàmm ci réew mi jàmm ju sax lu yomb ci moom la yàlla ko def kàddu yooyu sëriñ bi waxoon ne nañu ko ko jottalil xam naa ne li ci li koy mottali te genn kàddoom mooy gën sama téeméeri kàddu ci làmmiñam wu tedd wi lay bàyyi ko yooyu daal la ñu jot jotali loo woon moom nag mooy ñaan mooy e, dolli lañ ciy dolli loolu la lañ amoon digal yàlla nañ ko fekke déwén te yàlla bu mu doon suñu mujj ko te bu ñu koy fekke waat yàlla nañ ko tax gannaaw bu mu sant yàlla ci ñaan bi ñu ko ñaanoon daaw fekke ko ren yàlla nañ ko fekk déwén ñu koy sant ci rek ñaan may gi ñu may fekk ko ren asalaamaaleykum